buñu waxé kër jigéen tax ñu wax kër buñu waxé yar éducation jigéen bi kon buñu waxé société buñu waxé état yeen jigéen bi gàcce nga la kon ku leen jappalé ku leen jappalé seen wër bi yaram mu ngi jappalé njaboot mu ngi jappalé réew yi kon ñu ngi leen di encourager di leen ñaax ngeen dégg bu baax a baax borom xam-xam li ñu wax pour ngeen aar seen santé seen wér-gu-yaram ci jàngoro gi nga xam ne tudd nañ ko fi fi may daaneel rek mooy ministère bi nga xam ne mooy saytu wàllu tourisme ak transport aérien te njiitu réew mi dénk ma ko ñu lay wax madame la présidente de l'ISCA ñu ngi seen wet madame les présidentes des amicales ñu ngi seen wet bu jàppale leen ci lépp lu ngeen di yëngatu rek na ko service yi yéeg comme ça ñu ànd ci yéen dooleel leen.